on s'attendait à ce que euh, yenn magistrats yi ñu daal di leen sànni ca euh, yenn région yi donc ñi ci bari gis nañ ne dañ leen a yóbbu fële ca euh, Tambacounda je pense je pense que ñett lañu dinañu ñëw également ci li nga xam ne moom mooy nomination yi ñoom nit dof ah ñoom nit dof ak it kilifa bu kër gi dinañu ñëw également ci situation Euh, économique dëkk bi Sénégal ci boppam gis ngeen ne lépp a taga tembe euh, au lieu de créer des emplois en quatre mois euh, ñu bari perd nañu seen i seen seen i seen i seen liggéey gis nañu également que ni immigration irrégulière ba tey mi ngi am gis nañ ne démb démb démb démb manifestation am na wakaam gis nañ ni également ambulants yi kontaanuñu xam nañ ne ñu bëri ñi nga xamante ne ni ils pour euh, euh, euh, Ousmane Sonko et le PASTEF sans sans sans sans ñu nekk sax des sympathisants ou bien de euh, euh, des militants de PASTEF commencé nañu mun naa ne ils sont déçus ñenn ñi ils sont frustrés ñenn ñi comprendre ñu ñu ngi koy seetlu dinañ ci ñëw léegi léegi donc live bi dañ koy def de manière calme ñu waxtaan nekkul loo xamante ne ni mat yi dafa contre Ousmane Sonko patati patata déedéet on est tous des Sénégalais dañuy waxte yàlla rek a tax donc on va analyser juste les faits. autre chose également dinaa ñëw ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, xeex bi nga xam ne Ousmane Sonko moom la ñu war a wax mënu man du ma wax sax ay affaire de euh, euh, du du président joma Diomaye déedéet xeex bi rancune bi c'est Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo jóg pour xeex ak une partie de la presse sénégalaise dinañ ci ñëw dinaa jël comme exemple l'affaire de E-Media donc euh, dinaa xool sax dinaa mën a jot également euh, les responsables de e parce que am na ñu ma ci waxtaanal ci biir euh, voilà dinaa xool est-ce que dinañu mën a jokkoo ak ñoom sinon on va voir la semaine prochaine mais jamono ji jàpp ne presse bi am na ñi nga xamante ne ñu ngi nekk di waxtaan di diisoo di waxtaan ci seen biir ndax nag buñ la waree rey nit du toog di xoole ñu lay jéggi ñu lay ñu lay rendi jéggi yàlla dafay yomb on va se battre encore une fois je l'avais dit je le répète ñun ba nga xam ne élection yi jeex na ba pare man de en tout cas man sama combat ak ñenn ñi ma xam c'était que Ousmane Sonko bu mu nekk suñu président mooy Ousmane Sonko doo bokk kon 2024 Ousmane Sonko bokkul suñu combat moo doon xale yi di dee dinañ fexe ba état mu ñëw jëlaat également sañ-sañam maanaam un état fort gis ngeen ne. Ousmane Sonko yóbbu nañ ko ndungu siin dëkk bi na selaw lépp na teg nit ñi di liggéey seen liggéey gisoo leen kenn ku yepp yeppi ak di yolle yolle ci biir Pastef dëkk bi na selaw état jëlaat gëddëm parce que ñoo sensibiliser nekkoon ci réseaux sociaux yi bàyyiwuñu man Anita jóg ñoom ba jaxatee xam nga euh, baax yaay les activistes républicains ak yeneen nit également partout et même des gens qui sont battus ci dans, dans l'ombre également xam nga donc on s'est battu ba xale yi ba ñu jàppee Ousmane Sonko def na fa affaire de ay ay ay ay ay ay ay maa ngi coma ay ay ay dama nekk grève de la faim pour loo xale yi kenn génnul dëkk bi ne salaw c'est notre victoire loolu kenn mënu ci dara Ousmane Sonko tey bu nekk lee tey bu nekkulee tey président c'est notre victoire ay aka moo moo bëggoon nekk président à la place de Bassirou Diomaye Faye ay biir Pastef aka moo bëri ñi nga xam ne bëggoon nañu Ousmane ko nekk fee ca place euh, euh, Bassirou Diomaye Faye ñoo ko ko xañ ñu ne ko assez ah, Ousmane Sonko da ngay xaar ba ci kanam waaw bu ko neexee nag après nag yéen nekk au pouvoir loolu neex daf leen sénégalais comme ñoom ñoo toog jox leen jox leen pouvoir bi ñenn ci waa APR déggoo ak yéen jàppale leen ngeen jël pouvoir bi kon gars yi sénégalais yi les 54 pour cent il faut assumer mais ñun yàlla xam na ni benn moment live bi ma def je pense il un mois di leen expliquer yu bare bare bare moment am avant may reprendre samay live je me suis dit est-ce que jarati na sax ñuy def ay live est-ce que jarati na ñuy toog fi di xeex. parce que comme ñu xeex nañu fexe nañu pour nit ñi ubbi seeni bët yàgg naa leen wax ni leen waa Pastef ñi ci nekk ñu ci bëri c'est des opportunistes gars yi doy war ngeen ma doy seede ñaata yoon laa leen wax ni leen ces gens c'est des c'est des c'est des imposteurs mënuñu Ousmane ko ci boppam c'est un imposteur mënul ñaata yoon laa leen wax ne il est entouré la plupart des gens d'opportunistes de vrais caïmans mais Sénégal soxalu leen ñaata yoon fii bu ngeen ma seede ci samay live fii laa fi njëkk a wax ci mbirum mbirum suuf ne leen waa Pastef responsable yi nekk biir parti pastif ñu ci bari ñoo nekk syndicat ba nekk direction des impôts des des des impôts inspecteur euh, impôts yi ñu ci bari taxawal taxawal lañ syndicat syndicat bi ñu ci nekk ñu ci bari ñu ngi biir Pastef maa taxaw fii ne leen. syndicat boobu comme euh, euh, euh, société immobilière dagg nañ suuf fu ne am nañ kër fu ne am nañ ay ay ay terre fu maa fi njëkk taxaw ni leen inspecteur des impôts yooyu nekk biir Pastef ñoo nekk fële ci direction générale des impôts et domaine et des impôts di at ah, di di di di di di ak ak ak di maanaam di di jaay doole yenn homme d'affaires yi boo gañee marché dañuy bëgg ñoom nga cëral leen jox leen commission am foo jaar ak ñoom boo ko deful ñu yàqal la maa leen ko fi njëkk a wax tey jii ils sont au pouvoir ñi ngi pàccoo nguur gi jëpp gis nañ ko nomination yi weesu kan la ku ñu ñoomee PCA du nit dof sagakat nit dof ñëpp xam nañ ko ce n'est pas c'est-à-dire man man miinu moo ko xamantewuñu mais nit dof nekkul ne dama dama contre waa Pastef wala yu demee noonu mais ñëpp ku bëgg a gëstu laajteel fii en France à Paris nit dof jaaykatu drogue la woon nit dof cocaïne la doon jaay nit dof bu dama nekk ci réseaux sociaux dof da jaay bu weex bi bi ñuy fóon la doon jaay nit ñëpp xam nañ ne jaaykatu lu bon li la looloo tax mu jóge fi dem Sénégal tey ñu nommé ko PCA ndax moom moo leen faral moo ànd ak ñoom si rëkk son ko rak ak kanati kilifa bu yaanaamaar bu kër gi kilifa moom no comment donc ñëpp gis nañu des gens qui sont des sympathisants ou bien des des sénégalais lambda ou bien même qui sont ici dans la diaspora laalawuñu dara ay poli politique ñoom dañu mere woon président président ak ñi mu àndal ñoom c'était tout sauf Macky tey jii ñu ci bari ils sont déçus ils sont frustrés bii passé Cheikh Dieng mi nekkoon PDS ñu nommé ko fi DG directeur dañ ko wàccee ndax lan parce que dafa bañ benn marché gré à gré ñu tegg ko fa bañ ko teggee lan ban stratégie lañ jël du ma ci sax man sori parce que ñoom ñëpp a yem waaw ñoom ñëpp a yem parce que tamit ku nekk politicien nga yàgg Sénégal fexe ba am ci ay ndomb tànk ba ñu xam ne ba nga am ba nga am tur nga bokk suñu génération xam nga ne Ousmane Sonko ak ñi mu àndal gëmuñu dara yow xam nga ne si Ousmane ak waa Pastef ils ont leurré ce peuple là yow xam nga ne Ousmane Sonko lu mu génnee xale yi xale yi dee ndax mbirum taat moo tooñ président Macky Sall ak ñi mu àndal. yow xam nga ne kii du changer dara nga ànd ak moom ci loolu kon ñun ñëpp yem waaye moo tegal leen stratégie bi ba ñu ko teggee dañoo oo seeni journaliste ay ñoom Babacar Touré Kewulo ak ñoom seen nekk ci YouTube bi yëpp dañ ma koy génne di ma ko tegal mais boobu moom dama jël sama temps dem seetaani Babacar Touré YouTube pour lu may wax ci ci ci ci ci Cheikh Dia mu dem di ko génneel ay affaire de. oto bi ñu bi bi ñu ko bi ñu ko maanaam genre corruption la voilà des hommes d'affaires pour le corrompre dañ ko may oto. def leen ay kër ñu ngi signalé live bi s'il vous plaît leen stratégie bi donc Cheikh Dieng mi nga xam ne moo àndoon ak ñoom ba ñu nommé ko ci coalition Diomaye ba ñu nommé ko comme nag arrangé tu leen ñu war koo faxas dañuy yàq dara ñëw daal di ne te comme ñoom ñëpp na ay defkat lañu ñu ne waaw. Euh, oto bi ci boppam comme dañ ko may oto bi pour pas oto bi nekk euh, euh, coow mu jël oto bi ñu jël oto bi bu jël oto bi jaay ko jël xaalis bi def naa quatre-vingts ngi yàq dara kon nag jamono jii comme def nañu quatre mois ñeenti weer man de gisuma réforme bu fekkee ne gis nga réforme bi état bi def bi bi nguur gi def je parle pas d'état mais de régime ce régime là ñu defe woon nañ ne tey jii bu yegsee day commencer avec des réformes directement def appel à candidature pour yenn poste stratégique yi aucune réforme ñu wane seeni seeni carrément seen seeni seeni seen seeni carence carrément tout le monde le voit comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi en euh, euh, ci bi des gens ont perdu leurs emplois parce que ñu ngi ci affaire de defante ñu ngi ci affaire de rancune des jeunes ont perdu leur emploi ñu ne déetewaay instant bi nii ambulant yi mer ñu ne déete waaye instant xale yi ci boppam ñu ngi jëlaat géej géej gi di dem parce que xam nañ ne lii du dem pourtant ñoom bu xale yi bu ñu amee ay nit yu dee ci gaal gi ñoo doon jël seen i live di génn tag réseaux sociaux yi naan dëkk bi dafa mag yi xale yi amatuñu espoir ñu ngi jël géej gi di dem pourquoi xale yi tooguñu Sénégal toog am espoir ba ñu jëlee nguur gi yéen xale yi waroon nañoo toog comme 4 mois la ñu toog may leen tuuti temps parce que dañoo am espoir xam na ne da ngeen defar dëkk bi parce que xam nañ ne ay cuune ngeen xam nañ ne du ngeen defar dara xam nañ ne da ngeen leen a nax Ousmane Sonko yow ak sa ngang sa gàngoor da nga nax askanu Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët. munu leen te bàwu leen te ngeen fi nekk nag ya ngeen nekk di di paacoo da ngeen a xiif donc ya ngeen di paacoo poste yaa ngi di lijjanti ak yenn om d'affaires yi nga xam ñoo leen arrangé di def seen i combine parce que da ngeen di xiif bëgg génn balaa ngeen di génn ci nguur gi ku ci nekk nekk milliardaire kon c'est quoi la la différence entre yéen ak ñi fi nekkoon ak ñi fi yàgg a nekk comme da ne woon yow depuis Abdou Diouf ba ba Ablaye Wade dañoo war a fusiller ñi ñi ñi fi yàgg nekk euh, di def politique lan mooy différence entre Pastef instant bi nii bi nekk ci nguur gi ak ñi fi yàgg a ah ñun de lañ lañ doon mer mooy ku ñëw yéeg nekk euh, nekk au pouvoir da nga ñëw toog ak say xarit ak say copain ak say mbokk est-ce que loolu changé na ak waa Pastef déedéet dañoo ñëw toog ak seeni mbokk papa yaay doom ak seeni xarit ak ñi leen di saaga ñu accaparer les postes inondation yi saa yu jotaan lépp lañ daan xëpp gouvernement bi fi bi fi weesu inondation yi Touba ak ñoom seen lan moo fi changé dara changé wu lan moo changé ci suñu dund ñun Sénégal ñu waxante dëgg te yàlla rek a tax dëgg la 4 mois la ñu def 4 mois bëri na bëriwul waaye 4 mois cin bu naree neex bu baxee xëy au mois ñu démarrer avec des réformes mais nga ne nga ne ñu dina top départ xale yi xale xale yi xale yi di di ñàkk seen liggéey. magistrat yi nga xamante ne ni jël nañ leen affecté leen sànni leen ba fële ca Tambacounda bon les gens en ont beaucoup parlé ci réseau yi et tout comme si Tamba maanaam Tamba benn genre genre genre Bango la quoi mel ni comme Tamba genre genre Nicaragua la quoi mun naa mu ngi mel ni comme genre ay camp de concentration en fait lépp benn nit la Ousmane Sonko fayantoom defan defante parce que ñi ñu affecté. mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci dossier Adji Sarr ñi ñu affecté mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci euh, euh, dossier Mame Mbaye Niang bi procès bi ñu ngi fayantu waaye nag moytul de magistrat magistrat yi ci boppam moytul Ousmane Sonko danga ubbi front yu bari barki démb moo njaay nga dem doon cokkaas doon cokkaas euh, catholique yi ndax moom saa yu toogee moom balaa muy kontaan Ousmane Sonko foog muy defante ak teesante moom lay defante moom ci deret bi la ne mais xuloo di xeex di kàjj gaa yi comme amatul kenn ku muy defanteel presse bi ci boppam ñi nga ñu ngi waxtaan ci seen biir bu xool nu ñuy xeexee mu ne kan laa war a defal naa dem njoos dem njoos catholique comme ñoom comme ñoom ñoom duñu wax duñu bokk ci dara ñoom dañoo tubaab ba ëpp dañ civilisé ba mu ëpp waaw ñoom ñoom duñu xuloo duñu xeex waaye dootoo ko defati ñu ñëw léegi ci presse bi ci boppam une partie de la presse RTS moom dégg naa ku bokkul ci projet bi doo dem liggéeyi RTS yenn ministères yi ak direction yi ku bokkul te xeexoo bokkoon ci projet bi doo doo doo doo doo liggéey ci ministère wala nga am yenn yenn poste yi kon maanaam état bi ci boppam ku bokkul ci projet Pastef même boo nekkee sénégalais nga nekk en sénégalais bon temps nga am les compétences waaye bu fekkee ne xeexuloo ak ñoom bu fekkee ne fësuloo yow sa sa sa sa sa féete ci ñoom doo am ci poste yi kon loolu mooy la rupture qu'ils nous ont annoncé kon ma ñëw ci presse bi ci boppam da ngay dégg ñoom seeni seeni faux journalistes seeni pseudo journalistes et chroniqueurs qui te disent comment ça se fait que voilà gars yi ñëw en l'espace de quatre mois euh, euh, euh, groupe de presse yu mel ni immédiat commencé am ay problème d'argent mënuñu fay seen i seen i seen i seen i employés et même d'autres structures également ça veut dire que ñoom nguur gële ñoo leen doon engraissé nguur gële ñoo leen doon jox xaalis ñuy saaga Sonko ak waa Pastef gars yi ñu waxante te yàlla rek a tax ma jël seede képp kuy sénégalais maa ngi nuyu nag sénégalais yu bëri nga xamante ne nii Euh, bu ma gisee ci mbedd bi ndeysaan kaf waxtaan ak man kaf ree waxtaan ak man ñuy waxtaan ci Sénégal maa ngi leen di nuyu. ma jël euh, témoin sénégalais yi tey dafa am une partie de la presse bi nga xam ne Ousmane Sonko dafa leen ciblé Ñoxor Njaay convention ñi signé woon ak yenn direction yi ak ministères yi c'est-à-dire nga signé contrat ñu ne la telle date dañ la war a fay. Ousmane Sonko bloqué na lépp kon yow état bi ci boppam yow am na yenn organe de presse yi état daf leen amel xaalis convention yi ñu la war a fay ngeen signé contrat ba pare ñu war la fay ñu bloqué ko yow ci sa bopp ñu bloqué say compte fisc bi léegi yow bu ñu bloqué say compte état yor la yoral la xaalis kon yow organe de presse bi yow fan ngay utee xaalis pour mën a fay fisc dañuy waxtaan te yàlla rek a tax nga nekk organe de presse nga am ay contrat ñu amel la xaalis ñu war la ko fay Ousmane Sonko daal di daal di bloqué lépp nee na convention yëpp gars yi bu kenn fay bu ñu kenn fayagum ay ay pseudo audit fay leen impôt yéen organe de presse yi fan la ñuy fayee ak ban xaalis ndax danga ci jaare bloqué compte yi. parce que qu'ils veulent les tuer ma joxe exemple immédiat immédiat dañu amoon di bis bi ak ak kenn ci ci ci ci ñi nga xamante ne ni moom mooy seen i seen i actionnaire euh, seen associé may leen ma tuuti may leen ma tuuti ma génnee ko pour ngeen mën koo gis ngeen xam ko ñu ngi ko ooyee Abdoulaye Sylla war ngeen ko xàmmee kii mooy Abdoulaye Sylla ma won ko aussi waa TikTok waa TikTok kii mooy Abdoulaye Sylla donc Abdoulaye Sylla ci boppam ñu yàgg am ñu amoon ay bis bi avec euh, également ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, les responsables de E-Media lan moo tax ba coow li ñu jékki-jékki rek coow li coow li ni cur affaire bi rek ku nekk di ku nekk di ci wax Et ils ont tout fait pour salir les responsables de immédiats. Les actionnaires majoritaires, ñoom Alassane Samba Diop, ñoom ñoom euh, Mamadou Ibra Kane ak ñoom Boubacar Diallo lu tax te kan mooy Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla bu ngeen fàttali ko ci campagne bi moo fi jëloon influenceurs yeeg tiktokers yi man xaw ma ko j'ai rien contre lui mais ku attaqué presse bi attaqué nga ñu Abdoulaye Sylla déy nañ ma ni ma Abdoulaye Sylla maa lay laaj Abdoulaye Sylla est-ce que da woo ay responsables immédiats ni leen pourquoi il donne toujours la parole au journaliste euh, Ibou Fall ndax yow da jàpp ne Ibou dafay nekk di critiquer nguur gi kon ana liberté de la presse est-ce que damay poser question yow Abdoulaye Sylla est-ce que yow da nga am fit ak kilo bu day ni journaliste yi bu ñuy def seen liggéey kenn amul droit nga woo patron ne ko kii waratul leen ko jox antenne parce que day critiquer état wala day critiquer ñoom Ousmane Sonko amuñ ci droit ndax liberté de la presse même boo investir man de ba may nekk reporter bu ndaw Alassane Samba jox mun na ma ko témoigner sama premier reportage moom moo ma moo ma jox sama premier reportage de brillants journalistes ñu bugg leen décrédibiliser. en parenthèse maa ngi nuyu bu baax a baax daan Dieng bu leeral di ko wax jàppal mu dëgër maa ngi nuyu bu baax a baax a baax le monde à Dakar di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ne ay chef d'entreprise des patrons de presse yi nga xamante ne ñu ngi leen di bundu xataal bëgg leen a toroxal bii Sénégal ndax Ousmane Sonko dafa bëgg a fayantoo ak ñoom. ñu tëj seen entreprise ay sénégalais ay de jeunes journalistes de jeunes techniciens dana nekk au chômage ndax Ousmane Sonko am ñi mu àndal kon ba tey ci Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla dey nañ ma ma lay laaj Abdoulaye Sylla dañu ma ni da nga bëgg nekk décrédibiliser les nouveaux action les actionnaires de E-Media les responsables de E-Media ñoom euh, Alassane Samba Diop ak tamit euh, euh, Mamadou Ibra Kane parce que da nga bëgg nangu groupe de presse immédiat bi nga bëgg a jël mettre ko euh, euh, euh, service su Ousmane Sonko ak nguur gi ci boppam est-ce que loolu am na wala amut pourquoi coow li dafa jékki-jékki rek coow li ne kur nii vous avez des bis bii pourquoi maintenant quatre mois après l'arrivée au pouvoir de Ousmane Sonko et compagnie am man de dañ ma déy ma lay laaj Ousmane Sylla affirmé wu ma dama lay laaj ndax da nga bëgg a noggatu ñoom Alassane Samba Diop ak ñoom Mamadou Ibra Kane nangu groupe de presse bi pour le mettre au service du nouveau régime loolu laa lay laaj ñu déy ma ni moom Abdoulaye Sylla kan mooy Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla dañ ko jox marché jam ñaajo pour assainissement marché assainissement Diamniadio marché wu 140 milliards écoutez bien un marché de 140 milliards bu Diamniadio dañu ma déey ma lay laaj Abdoulaye Sylla ndax dëgg la nee nañ ma kat Abdoulaye Sylla defu fa dara pour noyer le poisson ak neexal ñoom Sonko maanaam régime bu bees bi moo tax muy attaqué responsable immédiat yi parce que cent quarante milliards marché assainissement assainissement jam ñaajo defu fa tous stratégie ban stratégie lañ jël dañoo dem ci seeni journalistes ñoom jox leen ay informations comme genre détournement voilà il a investi presque deux milliards et puis voilà gis na ni immédiat euh, dafa mel ni chef yi ñu ngi gundandaat ah wante employé ci boppam ñu ngi am arriéré de salaire même sax avance tabaski amuñu ko et patati et patata ma laajte j'ai fait mon travail même bu dee ay journaliste pro ak Pastef mais mais mais équilibrer l' information laajte leen sama laajte ñu ne ma Maty chefu immédiat yi jamais ñu jël ñoom ñoom du ñoom ñooy jël di fay. ñoom du ñu laal xaalis ñoom ci boppam ñoom dañ leen di fay mbir mi nan la demee dañoo jël benn cabinet bu ñu tuddee cabinet Greco dañoo dem uti benn cabinet cabinet Greco ci boppam mooy fay salaire yi lépp lu transaction financière ñoom ñoo koy def Alassane Samba Diop ak ñoom Mamadou Ibra Kane c'est d'abord des journalistes nee na ñoom ci boppam cabinet Greco moo leen di fay. bien que nag moom Abdoulaye Sylla ci biir groupe bi vingt cinq pour cent dong la ci am ñoom Mamadou Ibra Kane ak ñoom ak ñoom Alassane Samba Diop ñoom ils sont actionnaires majoritaires ma déggaat waa journaliste waa Pastef fii ba tey naan comment ça se fait ñu am ay problème mu xaalis te ñoom ñoo fi bëggoon a jënd des droits de de de la CAN Coupe d'Afrique des Nations bi passé ma laajte ma ne la waa yéen yéen a bëggoon jënd droit wu euh, Coupe d'Afrique des Nations kon kan ngeen fi am problème mu xaalis ak nu mu fa demee ñu ne ma teeyal ma ci ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma on se battait ñoom ñoo gagné waa E-Media dugg leen bu baax d'après li ñu ma expliqué ñoom ñoo gagné boo gagné les droits pour nga pour pour pour la kaan dañu war a dem uti ji xaalis ñoom dañu war a dem uti ji 700 millions. waaye waa RTS d'après lu ñu ma expliqué ñu jaay leen doole ñoom ñu nangu maanaam euh, euh, euh, mbir mi ba pare ñu injecté fa si je ma me trompe pas ñu injecté fa un milliard pour les droits pour la CAN mbir mi daal mbir la ci biir ñu ne ma bàcc ba tey waxuma de dañ ma nettali ñu ne ma mati ci ci ci cas boobu mbirum kan bi mu ne ma waa CNRA ci boppam dañ ñoo xeex fii laa yemagum pour l'instant Abdoulaye Sylla j'ai rien contre yow waaye nag mbir mi bu bu ne cëpp ne jàll ba ñu war cee wax dinañ ci wax mbirum jam ñaajo bi tamit ay journaliste lañ duñ bàyyi nag aussi ngeen nappaajee suñu suñu suñu suñu confrère mun a nekk dinañu dem gëstu ji jam ñaajo marché ba la nga fa liggéey. am na beneen dossier aussi ñu ma jox pour yow dama koy gistu xool ko ba pare balaa ma ciy ñëwaat kon Ousmane Sonko na nga xam ni daa ngi xeex ak ñun waaye billaay on va se battre nit du la ñëw rend rey la di la rend di dem di dem di la jéggi di dem on va se battre te lu ñu am jël bu ñu jógee ci loolu. Abdoulaye Sylla ci boppam ba foofu laay jeexalee ñu ne ma cabinet Greco ci boppam comme ñoom ñooy fay ak yépp parce que ñee duñu laal xaalis benn agent cabinet bi police wóolu na ko ñu dee ma ni ma mati agent Greco ci boppam ba mu demee police defu fa cinq minutes parce que nit mënoo ñëw ne yaa ngi porter plainte yaa ngi porter presse te amuloo preuve Abdoulaye Sylla génneel preuve yi ñu continuer balaa may jël léegi Émile mu ngi ci diaspora bi également euh, aussi euh, ma di ko nuyu bu baax a baax a baax am na benn vidéo bu ma waroon a euh, teg d'ailleurs bu Émile parce qu'il a dit plein de choses comme man yi nga xamante ne ni tey jii sénégalais ñu ngi ciy teg seen bët. dinaa ko jël léegi léegi balaa ñuy jeexal donc donc ce ce ce ce live là gars yi permettez-moi juste ma ñëw ci mbirum élection législative yi mais balaa élection législative yi. dama toog ba mu yàgg bon il paraît que mardi euh, assemblée nationale war nañu euh, gise ci seen biir euh, am nañu benn rencontre benn réunion mais man je me dis comme petit modèle man petit modèle laa mais petit modèle ni ko xale yi di woowee ci internet bi petit modèle kor Adji Sarr bébé Oussou bébé moom ma ngay fafal naaw moom a ngi il vit sa best life te ngeen ko gisee ne mu jël avion présidentiel bi ma leen di kekkantoo ngeen naan comme da ngeen may bañal tapis rouge man bu gën a dee leen di defaral man maa ngi jël avion présidentiel. kon petit modèle kon Adji Sarr moom ci tey seen defantal la nekk il est très gamin comme jël na avion présidentiel war a dem kii et tout cela donc man je me dis assemblée nationale. ba tey ñu ngi xaar euh, déclaration politique générale du du du euh, du premier ministre ba léegi on a rien coow li bëri woon na étou tout président wax na ci et tout mais mais mais ça n'avance pas ça n'avance pas et c'est c'est donc est-ce que réunion bi am mardi ce sera pourquoi est-ce que da ngeen di xoolaat règlement intérieur bi est-ce que da ngeen di bàyyi Ousmane Sonko premier ministre ba tey mu leen di nappaajee yéen yéen député yi yéen ñi ngeen xam ne askan bi moo leen fal ni askan bi falee président Diomaye Faye noonu la leen falee moom premier ministre dañ koo nommé président moo ko nommé dafa war a xam palaasam mu leen di nappaaje di yéeg seen kaw di napp di di di di fa ngeros kon lan ngeen fas yéene def mardi di leen ubbi si ñuy bët di leen seetaan ndax da ngeen di xoolaat règlement intérieur bi ngeen bàyyi ko mu leen di nappaaje dina ñëw di def déclaration politique générale ou pas kañ nañuy tas assemblée euh, nationale assemblée nationale ci boppam. député yi ci boppam am na ay député Pastef ñoom te bëgguñu ñu tas ko te dafa am lu tax foofu laay yem balaa may jël euh, Émile ñu ñëw rapidement rek ci élection législative yi dañuy tax rek dem élection législative yi am na ñu bëri ñu ma ci waxtaanal waaw bu may def briefing am na ñu bëri ñu ma ci waxtaanal sincèrement je vous dis sincèrement élection législative yi. tey ak li nga xam ne depuis quatre mois frustration ak nit nit ñi mbetteel gu ñu am ci nguur gu bees gi tey opposition mooy ñen waa APR ak ki nekkoon seen candidat di Amadou Ba peut-être que dina am mouvement boppam ak également waa PDS képp kuy woote opposition boo defee te dëgg yàlla rek a nga jouer un franc jeu j'ai bien dit un franc jeu surtout waa APR nag ngeen génne l'artillerie lourde APR ngeen ànd ak ñoom Amadou Ba ànd ak waa PDS Karim aussi mu wax également fa mu féetee Karim Wade waa PDS ndax da ngeen di laamisoo ba tey ak Ousmane Sonko ak Pastef wala da ngeen di taxaw ci carrément ci opposé wu mu leer ngeen ànd ci ak ñoom Bougane ak ñoom Thierno ñëpp ñoom ak ak waa République des Valeurs toute l'opposition ngeen def benn front ngeen ànd xeex. bu vous sauvez yalla ni en majorité absolue et vous allez leur imposer une cohabitation pour sauver le Sénégal. Je, je, je, je, répète, je répète. Tay bu opposition bolo wa rewmi ma ngi len di nuy wa rewmi wa di nuy bu baax président euh, euh Idrissa Seck njitu rewmi di nuy ñom Babacar di nuy ñom Mané soy way di nuy bu baax baax baax toute l'opposition réunie ngeen def ko de manière franche ngeen taxaw xam ne kat on va vers le mur droit ou c'est-à-dire que on va vers le mais un avenir incertain ngeen xool le pays juste le Sénégal que le Sénégal non 18 heures mbir mi farankulaayu ñii du duñu mën a am majorité absolue waa waa Pastef mënuñu am majorité absolue mënul nekk waaye nag bu ngeen defee seen mënin des calculs politiques guéguerre su ma defee li diw lii diw mais on sera toujours excusez du terme dans la merde donc gars yi may leen ma ma jël Émile ñu waxtaan tuuti dañu war a dem euh, dama war a dem def ji waxtaan bu am solo ak it euh, euh, sama waa plateforme et puis tey aussi la donc clôture des des JO également Cheikh euh, Cheikh naa Cheikh Sadbou Keita maa ngi la nuyu bu baax a baax a baax Victor Diagne aussi voilà je vais pas jusqu'à dire que Karim est un non je vais pas dire ça maa ngi koy nuyu d'ailleurs Karim Wade maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax depuis Qatar di nuyu aussi ñoom Nafi Diallo bu baax a baax a baax ah PDS euh, euh, ak lu ñu ko mën a waxal PDS dafa nekk parti boo xamante ne ne kenn mënu koo négliger ci Sénégal ah, xam nga donc PDS bu bu bu président Abdoulaye Wade donc lépp luy nit di sumb moom PDS da cee war a da cee war a mën a mun mën a mën a bokk donc gars yi maa ngi donc jël ki nga xam ne moom mooy euh, donc Émile Émile maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax nga permettre ma balaa ma koy fàtte euh, faites maximum de cœur donc mettez des cœurs pour euh, kii di Bah Diakhaté mi ngi ca kaso ba donc c'est le premier détenu politique defe naa donc TikTok bi gars yi signale nañ ko signalé nañu TikTok bi gars yi baal leen ma de dañoo dañoo signalé TikTok bi bàyyi leen ma déclenché beneen live ah dañoo signale reprendre le live dañ koo signaler mettez mettez des cœurs donc gars yi permettez-moi euh, ma def benn euh, donc benn benn benn benn une pensée vraiment à euh, Badiakhaté et puis aussi activité publicains yi ngeen wax ñu le compte à rebours kañ lay génn que gars yi mën ko sorale parce que namm nañ ko lool lool lool waaw donc maa ngi lay bu baax a baax a baax Émile. sa kàddu. waaw ngay jàllale chaque dimanche. waaw ci ziar sénégalais yëpp. Mhm. plus particulièrement Bah Diakhaté ak imam. Mhm. di leen wax ne que ni leen tëjee ñun ñëpp leen tëj. Mhm. mais sunu kàddu tamit mooy seen kàddu. dafa mel ne kon ñu ngi ci biti ndax li ñuy kaas mooy liñ doon kaas ñoom. muy dëgg. gi sénégalais yi war a gis. xam ko dund ko. ndax dëgg mooy mooy njëkk te mooy mujj. kon nan fexe continuer ay ay ay sos. jël na réew mi. nax na nit ñi. mais na nit ñi jàpp mu leer mu dëgër. ba jaxate foofu mu nekk coono yu muy dund mhm. gaa yaa ngi koy dund tamit fii mhm. parce que réew mi gën a jaxasoo gën na metti mhm. ci note ci note presse boobu ngay wax laa bëgg ñu xam ne que ni presse bi dañ koy noot pour lan pour fexe euh, mën a dem ci dictature ndax bo nootee presse daa di noot daal di noot par exemple le secteur privé bi ba mm. kenn mënatul liggéey entreprise yi di teg ba mu mel ne ñu ñu dépassé sax fi ñu toll woon ci Covid 19. Mm. informel bi nga jël booy charretier yi mm. jël jakarta yi mm-hmm. jël ñooñu ñëpp la bëgg leen noot moom mooy dem ci dictature nga jëm ba nit ñi dootuñu tal réew mi lu ñu lekk la ñuy tal te bu nu ko nee seetaan foofu la ñu jëm di nga dem ba lu Ousmane Sonko def noonu la. Mhm. lu lu Ibnu Babel Jaxeer def noonu la l' essentiel na nga am ñaar dërëm wala fukki dërëm yoo mënee cere. Mhm. pour lekk wala sa njaboot lekk mhm. foofu la ñu bëgg yóbbu te du demee noonu. ndax Sénégal pays bu souverain la. am ñu gëm seen bopp gëm réew mi xam ne réew mi dafa am nu mu doon doxee te fa la ñuy dellu ji par force incha allah. may waxaat ne député ñoo war a tàmbali ñoom. mooy lan moom mooy fexe ba voté euh, dissol euh, loi boo xamante ne du am dissolution assemblée. Mhm. Ousmane Sonko moo woote woon ne dafa bëgg. Mhm. Sénégal nekk pays boo xamante ne exemple lay nekk ci dëkk bi moom mooy que ni assemblée bi kenn du ko mën a noot. Mhm. yàlla def na. député yi tey ñi majoritaire opposition bi la nekk kon loolu mu doon ñaan la ko yàlla may tey. kon bu dee góor te dina ma dina dina ma jaaxal trop trop trop. ndax góor première chose am mooy loo wax ñu gis ko. mais du doon ay sos ak ñu lay vaar ba nga war a rus tiim sa njaboot di rus. Mhm. kon nag boo nekkee ñu dul gor. Mhm. yow da koy am nooy xeexee na mhm. na député yi. ñoom ñoo tal ay ay ay ay taxaw di xaar Ousmane Sonko mais nañ dëggal seen bopp ba pare député yooyu fa nekk yëpp muy muy ñi nekk Pastef ak ñi nekk ay PDS ak ñi nekk ay Benno ñi nekk ay. ñu doon ay singleton ak yooyu yëpp. amu ci kenn koo xamante ne leer na la di nga delluwaat assemblée kon li nga war a njëkk def. moom mooy nga xeex ba toog fa comme ñoom li ñu doon ñaan la yàlla def tey. régime boo xamante ne amul majorité assemblée. Mhm. nan ànd loolu ci cinq ans yi ñu xool dëkk bi di demee comme ça lekk équitable. Mhm. may waxaat benn affaire. Mhm. Sénégal Ousmane Sonko nee na dëkk bi dafa nekk en ruine. luy wane seen tuune mooy dëkk bu nekk en ruine euh, euh, avion présidentiel bi di jóg di dem chaque jour ba lekk lu ëpp un milliard yaakaar naa ne dëkk bu nekk en ruine. doo am un milliard plus d'un milliard yu ñuy dugal ci avion buy ja wër di taxawaalu andiwul benn yoon xaalis. pays bi dafa nekk en ruine moom moo waxoon ne bés bu nu gañee nguur gi dañuy jaay avion présidentiel bi boobu ba léegi avion bi jóg dem ñëwaat taxawaan lañ koy utiliser. Mhm. ba tey moom moo ko utiliser. Mhm. dem fan ci ku tudd Kagame kuy kaas deux mandats sa biir réew ne kenn waru koo dépassé. Mhm. war ngaa rus sa dem ci koo xamante ne mi ngi ci nguur gi depuis vingt ans nekk ci cinquième mandaa mandat am. ab jigéen bu nekkoon opposante may waxaat ne. comme réew mi na moom nee na dafa nekk en ruine na lijjanti. comme moo bokk toogoon wax dossier yëpp la yor. Mm-hmm. léegi nag yàlla fexe na ba mu yor dossier yëpp par force. Mm-hmm. kon na fexe lijjanti quatre vingt quatorze yu Mamour Diallo yi nga xamante ne xam na banque bi mu jaaroon. quatre vingt quatorze milliards yi na leer na leer waaw. ma ne mbirum quatre vingt quatorze milliards yi na leer. na leer na génn dañoo soxla quatre quatorze milliards ay at ñu koy wax balaa ñuy lebi te am quatre mhm. ay Atlas ay ñu bokk numéro téléphone loolu sama yoon nekku ci moom moo ne xam na banque bi quarante six milliards yi jaar nañu génneel quarante six milliards yi comme nous sommes en ruine mhm. quarante six milliards dinañ ci mën a dund tuuti en attendant mhm. mu wëlbatikuwaat wax mille milliards yi na lijjanti mille milliards yi na génn mu wane kii sàcc mille milliards yi Covid Mm-hmm. te loolu yëpp sax am na lu ko gën a neex ñun am nañ six mille milliards yu Aliou Sall sàccoon mm-hmm. mais lu ñuy dem di wuti ay quatre cent cinquante milliards yu euro boo tam yor six mille milliards yu nit sàcc nekk biir Sénégal ndax yàlla Mati mm-hmm. xaalis bi mi ngi ci réew mi moo ko waxoon ne dañ koo sàcc léegi yor na dossier yi na ko génne dëkk bi naat moo gën ñin ñu toog di am problème mu ceeb lépp di yokku mm. kenn mënut a wax fii mënut a tere kenn mu wax ndax dafa wax mm. di wër di wax di sos di fen ba falu na bàyyi ñuy wax dëgg ndax dëgg ku koy wax kenn ku ko xañ xel mm-hmm. nag mën na koo xañ nit ñi à commencer par lui-même. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw foofu lañ toll ci réew mi. waaw léegi léegi yow. vas-y waaw léegi yow naka nga gisee en fait euh, donc les c'est quatre mois d'accord c'est quatre mois euh, mun nañ leen may un an deux ans mais bu bu bu bu ceebu jën comment on dit ceeb bu naree neex bu baxee xeeñ donc fu mu nekk nii ñoom gisuñu rupture ci benn niveau de un pour yow lan mooy solution bi instant bi nii en fait lan mooy solution bi que on doit enfin man sama sama sama humble avis c'est l'unité l'union de l'opposition ci gén ci ginnaaw benn front front boo xamante ne ni dina dina mën a xeex dem législative yi pour pour pour mën a gagner imposer une cohabitation. Maty euh, bi euh, ma élection bi juste defe naa euh, duggoon naa ci sa live. Mhm. ne moom VAR mooy première opposition am ak réalisation yi fi Macky bàyyi. Mhm. man personnellement dama ne woon janvier février deux mille vingt cinq laay démarré waat parce que pour man loolu boobu laa yaakaar élection législative dina war a mën a amaat techniquement bu ñu respecté mhm. mais boo nekkee ñoo xamante ne respecté wuñ dara parce que seen kàddu sax mën ñu ko respecté. Mhm. respecté wuñu respecté wuñu benn këru diine. Mhm. kon ñooñu léeg-léeg da ngay toll fam doo respecté dara mais fi ñu toll nii. ñoom jaratul may dara parce que ñoom ñoo taxaw. président bi génn il a le meilleur euh, premier ministre de l'histoire du Sénégal kon ça dire que moom mhm. def na bilan xaat ñun dañ leen doon may temps comme mhm. moom jot na xam ni affaire yi demee mais ñi jaruñu may bilan euh, mhm. jaruñu may temps parce que ba pare booy may temps da ngay may temps kuy liggéey mais quatre mois yi fi jàll li fi dugg yëpp ci xaalis bu nu leb wax ma benn peinture rek bu nu jënd potu peinture bu nu jënd pour peinture benn tali waxuma de wax bu nu peinture pour ñun Sénégal amatul opposition de xam nga lu mu amoon. Mhm. ay nit yu gëmoon ne ki fi nekk baaxul yëpp ñu teg ko ci ay sos daf fi war a jóge. Mhm. jóge na fi nag comme sénégalais yi ñoo taxawoon def ko référendum la sénégalais yi taxawaat xam ne dañ leen ndax nax. Mhm. ñii dañoo sos sos sos ba jot réew mi taxaw di xool naka lan war a def. dëkk yi xaaratunu. mati biir du xaar biir du xaar. électricité du xaar. muy yow muy man muy nekk Sénégal amu ci kenn ku facture am di xaar léegi sax woyofal la day xonk di xonk ba ne këpp kon xam nga xaaratul. Mm-hmm. képp ku ci xaar yaa ngi xaar sa coono. Mm-hmm. parce que la wax ci bu naree bu naree neex bu baxee xeeñ. Mm-hmm. fii ma ne la waxuma la gaz mais këriñ sax moo fi amul pour ñu koyal. xoolal xoolal balaa balaa sax ma lay bàyyi balaa ma lay bàyyi sax ñu wax. a balaañ ma lay bàyyi sax ñu wax aussi ci euh, magistrature bi euh, maanaam euh, xam nga ça ça un peu ça ça a bougé quand lépp en fait c'est parce que dafa bëgg a taxawal ay poursuites parce que am na ko ko bindi léegi donc avant que ma koy fàtte il a parfaitement raison am na ko ko bindi léegi ci commentaire yi effectivement dafa bëgg a maanaam am sa justice à lui sa justice à lui des magistrats à sa solde pour ñu mën a dem xeex ak opposant milliardaire en parenthèse yi ñuy wax ñoom waaw mmh. moom il a toujours eu en lui mmh. que ki taxaw di saaga justice bi ci as ta justice à toi mmh. bu ñu la waxee ne lii nga def moom moo baax euh, li nga def tooñoo nga ne justice bi bi baax na nan jël bëgguñ sax dellu si nan jël kaawu a Sagna yàlla na ko yàlla yërëm ba nu jàppee gars yi moom moo taxaw ne demeewul nii warul demee ni mhm. moom yàgg na am justice am à mhm. tey la mu doon wax en 2013. Pape mhm. Alé Niang invité ko. mu ne waruñu jël ne ñii ñooy sàcc yi ñii ñooy lii ñii ñooy lii c'est pas normal. tey loolu loolu la loolu la politiqué après 2013 kaw kaawu bu Ndiaye la woon. bi Tahibou Ndiaye sàccee mu ne moom bu Ndiaye amul sax lu mu fayee Tahibou Ndiaye génne trois et quelques milliards. man du ma défendre sàcc. koo défendre rek yéen a yem. deux mille vingt et un bi may wax loolu ci live dama ci tegaloon dem leen xool Bassirou Diomaye fan la dëkk c' était en et un dem leen xool fan la dëkk ci ci ci ci ci mhm. mi ngi loué woon fii Fass les gens n'ont pas voulu mhm. tey ñu ngi gis ndànk ndànk nan leen honnête ñun ñëp mhm. nga yóbbu nit ki Tamba dafa fekk yow xamatoonu dëkk bi demee Tamba Macky Sall da koo liggéey Tamba c' est une ville comme ici yow Mati yaa ngi Europe pour bu dee par exemple Italie da ngay gis ay italiens yu mës ta dem Rome parce que lépp lu nu am dañ koy soxla fi Tamba actuellement li nu am li nu soxla ñu ngi koy am foofu am na tribunal bu bees am ay infrastructure yu bees boo fa demee sax yow tee à l'aise nag kenn du la sonal ci yaa wax maa fi wax bi am biir Dakar ak Jakarta yeeg jaxas-jaxas beeg lépp li fa gars yi créé mhm. kon ku ci nekk mhm. na nga toog fa nga nekk ñu dañ la fa yóbbu yow liggéey moo la ñor mhm. mënuñu la wàcce mënuñu la rétrogradé li nu mën mooy changer la zone demal nga liggéey zone boobu parce que toutes les régions du Sénégal se valent tey fan la juddoo jomaay fu mu juddoo mhm. ñoom ñu fekk ñun ñu juddee Dakar mënuñoo am terrain gratis Dakar ñoom ñu am ko Dakar gratis mhm. kon du judd du benn zone gënul benn zone ci Sénégal mhm. na ñooñu taxaw liggéey ñu wëlbatiku waat def face parce que ku ci deful face waxuma la yow mais say doom ak say sët ñoo nar a perte ñi ñoo voté woon non ci référendum bi pour ñu seddoo pétrole beeg gaz bi tey bu ñu leen bàyyee ci paacoo ko leen jëm ñoom kon nañ leen taxawaat ñu gën a taxaw jàkkaarloo ak ñoom xam ne réew mi ñun ñoo koy defar loolu ma yàgg wax mhm. benn coréen du ñëw duñu ko defaral mhm. réew mi nag pour mu defaru mhm. dañ koy teg lépp ci dëgg jaar ci dëgg may excusé waat ci terme bi may wax naan fen mais wolof la wolof a diis saagawu ma waxuma lu ñaaw te kenn xam xamalu ma ko mais terme wolof bi moo tudd noonu ay fenkat nag boo nekkee ñoom da ngay xam ne ay fenkat lan yow nga jël say devant nekk ci dëgg di ci dox buñ la ciy noot sax nan la noot ci dëgg quand tu seras seul tu seras sur la voie la voie de la vérité. Mhm. tey moom mooy mucc. maa ngi jégalu mati ci dérangement bi nag. merci beaucoup merci beaucoup Émile xam naa dinañ ci gën a daal dinaa la woo bu ci kanamee dégg voilà pour la plateforme merci beaucoup merci. voilà donc gars yi euh, gars yi donc voilà donc bu leen fàttee euh, comme ni ko gars yi waxee ci commentaire yi la seule issue en ce moment. fii lañuy ñuy xoolee nag ba gis les politiciens qui sont là pour nous les sénégalais ak ñi nga xam ne ñu ngi fi pour des calculs politique pour seen carrière politique fu mu nekk ni Sénégal lépp a takk lépp a bloqué. am na ay nit yoo xam te ne ni balaa ñuy dégg nañ ne ñu ngi bloqué compte jàmbur yi dem nañ retiré seen xaalis toog te ñoo wax dëgg Sénégal xaalis circulé tout lépp a bloqué ñenn ñi ñu ngi perdre seen i liggéey xale yi jëlaat nañ géej gi di dem. on va fu mu nekk ni catastrophe la fu mu nekk nii dara dara dara dara dara gisuma fi fu mu nekk ni wax dëgg neex yàlla lu positif loo xam ni nguur gu bees gi def na ko fi gisuma ko gisuma ko donc il faut penser au pays la seule issue est que l'opposition fasse un front def leen benn front élection législative yi ngeen am seen majorité wala xañ leen majorité absolue tey bu ngeen amoon tey bu ngeen amoon defoon ful ak fayda def am seen majorité absolue opposition am majorité absolue ngeen imposer na une cohabitation pour sauver ce pays là parce que mënul nekk ngeen jël doole bi jox leen ko ndax ñii ay dof lañ kii c'est un gamin petit modèle corps Adji Sarr Ousou Bébé c'est un gamin il est en train de jour de vivre sa best life defante teesante dugg naa avion présidentiel dinaa jaar tapis rouge waaw kay ah Madiambal Diagne naa def lii ah waa gis naa ah, Mamadou Ibra Kane tey ngeen dee immédiat ahan ah, ah trois pommes waaw bàyyi ko dootu ñëwati Sénégal ah société bu ndawam boobu dinaa ko éradiquer dinaa ko dinaa ko dinaa leen dinaa leen humilier yal na ñu on va se battre on a se battre incha allah rabbi te yàlla rek yàlla rek moo yàlla fii yàlla rek a fi ne yàlla rek a fi ne man de xam naa am na ñu bëri ñoo xamante ne patron de presse si may waxtaanal tiituñu rafuñu xefuñu ils sont plus que jamais déterminés Ousmane ko on est plus que jamais déterminés duñ la bàyyi nga rey ñu duñ la bàyyi nga humilier ñu bu soobee yàlla te dañoo am nag man dama kontaan temps yi xaw dama kontaan dama kontaan. parce que sénégalais yaa ngi ubbi seen bët parce que sénégalais te ne laalawuñu politique ils sont déçus ils commencent à être mais vraiment ils sont frustrés et commencent à être déçus li may wax ne waxuma ko pour contre mais c'est la vérité li ngeen doon bañ yëpp li ngeen doon li ngeen doon ŋàññi démb moom ngeen di def tey kon rupture amul yal nañ fi yàlla bàyyi ba ci kanam bu soobe yàlla di ci kanam rawu di bët kon nag soyons déterminés kon force à Maodo Ibra Kane force à Alassane Samba Diop waa E-Media force à Maimouna Ndour Faye force à ñoom ñoom ak ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi leen di bëgg a noot force à leeral groupe leeral ak Dame Dieng force à toi Dame Dieng force à toi yow njaw Fall le monde à Dakar ak képp koo xamante ne nii tu es persécuté au Sénégal yaa ngi nekk dans la presse sénégalaise on te persécute on va résister incha jàmm ak jàmm sama gars yi euh, di leen di euh, euh, remercier bu baax a baax a baax encore une fois force à toi Bah Diakhaté di nuyu aussi activiste républicain yi bokkuma activiste républicain defuma politique je suis politique mais juste fàttali ko encore une fois Euh, bu ngeen gisoon on s'est unis parce que j'avais fait dama j'avais lancé un message que pour kuy politique ku dul politique il faut qu'on se batte pour sauver la République sénégalaise bañ suñu ndaw yi di di euh, di dee mais ñoom les pro-Pastef les pseudo-chroniqueurs et journalistes pour ñëw pour jéem a décrédibiliser décrédibiliser Maty ces genre oui liveur apériste et cetera activiste et cetera sama nga ñu nekku ca parce que forme de communication la ñu ci bëri mot naa leen ndey je sais très bien de quoi vous à quoi vous jouez en fait donc man j'allais que ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu génération ñu on n'a pas besoin de l'approbation ou bien qu'on nous félicite ou que ou que qu'on nous dise que yaa fi mën ou des trucs comme ça kon kon ñun c'est-à-dire ñu féliciter la ak ñu jéem laa néewal ñu jéem laa euh, euh, maanaam euh, décrédibiliser on s'en fiche on s'en fiche pourquoi parce que on n'a plus rien à prouver on s'en fiche pourquoi parce que ba ñu nekkee reporter di rayante ba am tur dem ci télé bi rajaxe ko ñuy def ñuy def maanaam ñuy def euh, euh, sondage wala ñuy def euh, ñu naan show to show première émission de télévision du Sénégal boobu yéen dañ leen di couche on a on a rien à prouver man sama bopp du sama maay du sama mentalité j'ai rien à prouver à personne xam naa man may kan xam naa sama parcours te xam naa fi ma bëgg a jëm kon na gars yi jàmm ak jàmm on résiste yal yàlla aar Sénégal yal nu yàlla euh, sàmm donc ja jërëjëf bon dimanche et bon euh, début de semaine ba bàyyi sama gars yi. KMTV maa ngi lay ziar bu baax a baax dinaa la obb ci kanam pour qu'on puisse voilà pour que ma mën a euh, boole donc live yi que ce soit YouTube TikTok également Facebook jàmm ak jàmm.